asalaamaaleykum mbokki jullit yi xarit yi soppe yi ku dégg loolu xam ne bés bu rëy bés bu mag kañ lay am. le 6 janvier lay doon incha allah rabbi ca Almadi en face EDK bi. fàttali dîner de gala bu mag boobu di am samedi le 6 fa fekk ca Almadi dîner bi nag ñoo ngi ko tuddee guddik salaatu ala nabi am. na bi boo paasee EDK bi rek ci kër Cheikh bala nu koy defee entrée yi c'est gratuit.

FKR abal ma liggéey muy projet FKR abal ma ma liggéey man Pape Mboup mu Serigne Saliou nag la lanu ko lanu ko dippee di guddi ñu fas yéene julli ci yonent bi ñu ngi ciy woo sama soppee man abu Aboubacry dinaa fa presté te xam ngeen ne su ma fa presté yonent bi la nuy way képp koo xamante ne sama soppee nga dinaa la bëggal wax fondation Kër Rasoul daal wax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg neex yàlla ñii ñoo bëgg yonent bi guddi salaatu ala nabi ba le 6